actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet di mu di convocation Ousmane Sonko daal di nay euh, tombé bu ñu sukkandikoo rek ci avocat bi di maître euh, Khoureyssi Ba moo ñu ko daal di xamal xamal ñu ne kii di Ousmane Sonko rek niki ëllëg ci àllarba ji bu ay 9h rek jotee ci la war a janoo rek ak juge d'instruction du huitième euh, cabinet di Mamadou Seck waaye tey jii rek ci talaata ji rek transporteur bii di Sidi Ahmed Mbaye moom mi nga xamante ni bii rek moo jëli woon rek la ko juge bi nag doon déglu ci fàttali rek l'immunité parlementaire Ousmane Sonko bii ñu lëbe rek moo daal di tax rek mu mën a dem wuy ji yoon mu sukkandiku rek ci libération moo ñu ko daal di xamal ñu xaarani rek niki ëllëg Ousmane Sonko war a janoo rek ak Mamadou Seck coïncidence bu ëtt yëglekaay yëpp xëy rek daal di bindandoo mu mel ne rek ne 3 mars nekk na loo xamante ni bi rek ràññee nañ ko fii ci Sénégal Sonko war a wuy ji rek niki suba ci mars bi leen ginnaaw rek bañu ko ji jiiñee viol répétitif ak menace de mort jugee rek ci Adji Sarr di ab masseuse mu mel ne rek 3 mars 2017 ci la ancien maire daal di convoqué woon ba ci 15 mars 2013 ci la kii di Karim Meïssa Wade mu mel ne rek mois de mars nekk na mois boo xamante nii ràññee nañ ko bu baax a baax fii ci Sénégal ginnaaw rek ci ay kàngam yoo xamante ni bii rek ci la ñuy amal rek seen i convocation mu mel ne Khalifa Sall ak Karim Meïssa Idrissa Wade ak ki ko nar a ñette rek di Ousmane sunko ci lu mel noonu rek ci lañ leen daal di woowoon mu di ab 3 mars mu mel ne rek coïncidence la bu nga xamante ne bii rek ñëpp rek ñoo ko daal di seetloo loo mu mel ne rek dafay daal di éliminer rek ay opposants yu nekkee rek fii ci biir réew mi ci mbiru Ousmane Sonko la ñuy daal di desene gis nañ ki nga xamante ne rek moo di Moussa Sy dafa daal di génn rek xam le ne dossier bi nga xamante ne bi daal dañ koo daal di taq rek ne mbiru moo ci nekk nee na nekkul benn yoon lu ni mel nee na daal complot bi nga xamante ne ñu ngi koy wax jëm ci boobulee affaire moom du ko nangu benn yoon ndax nee na kii du Sonko xam na aji Sarr lu tolloog 3 ba 4 ans kon nag li nga xamante ne bii rek jiñ nañ ko ko dafa war a dem rek daal di wuy ji ngir setal rek ngir nit ñi xam rek fan la yëf rek daal di mujjee ba tey rek ci mbiru Ousmane Sonko gis nañ rek kii di maître El Hadj Diouf moom moo nekk rek avocat bi layal Adji ñu gis na rek kii di waa Jamra dañoo jugoon rek ngir daal dem bëgg a waxtaan ak kii di Adji Sarr waaye maître El Hadj Diouf nag dafa daal di bañ lekk lu ni mel daal di leen di xamal ne leen Adji Sarr amul kenn rek ku muy waxal ku dul moom jamono ji ñoom nag am nañ yeneen problème yoo xamante ni war nañ koo mën occuper lu du ñëw rek ci mel nii ki nga xamante ni rek di maître El Hadj Diouf moo ko xamal waa Jamra ci fàttali rek waa Jamra demoon loxoom amaana sax noonu la ñu bëggoon a def kii di Adji saar waaye nag maître El Hadj Diouf daf leen rek ñàkk a may li ni mel xamal leen ne ñu dem rek occupé religion bi moo ëpp njariñ rek ñu nekk fii rek di def lii ni mu sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi di source a moo ñu xamal li ni mel ba tey ci mbiri Ousmane Sonko rek ci la ñuy daal dese ni gisoon nañ ne nag a manifestation yu metti rek juddu woon na ci ba tax rek kii di jeune Babacar Ba moom nag amee woon ca gaañu gaañu bu métti ba dañoo mujjoon sax dagg loxo ba waaye nag mujj naa génn rek ca hôpital ba ñu gis rek noonu ci image loxo bi daf koo daal di ñàkk moom nag ca manifestation yoo amoon foofee ca Bignona ca la daal di bokkoon ni ngeen koy gisee noonu nag ci photo bi ñu fësal rek handicapé boobee nga xamante ni bii rek Boubacar Ba daal na koy jëlee rek ci manifestation manifestation yu métti yooyee nga xamante ne bii juddu woon na te dara warul ko woon rek lu dul jàppale euh, seen leader bii de di Ousmane Sonko. ñu àddu ci leneen ginnaaw rek ci am manifestation boo xamante ni bii rek bëggoon nañ koo amal ni ki fan yi ñu génn mu di dàmbooj rek ak kii di Abdou Karim Gueye alliance Karim Xurum Xaax bañ tegoon leen loxo rek waaye nag xamal nañu ne daal nañ leen di bàyyi te bañ leen jàppee woon rek enseignant yëpp dañoo décrété woon rek daa def ab arrêt des cours ngir rek bëgg ñu di bàyyi rek kii di euh, Dame Mbodj ngir mu mën a am rek euh, liberté waaye loolee nag euh, mujj ne antu l'activiste bi di Karim Gueye ak kooku noonu rek di Dame daan nañ leen rek may seen liberté ñu àddu ci leneen wax bi la yoon ci Mame Goor Diazaka ginnaaw rek ba mu génnee xam le ne moom musul dem rek ci salon de massage waaye nag ab audio boo xamante ni rek ay xale génn woon ko ngir di dëggal ne kii di Mame Goor demoon na rek ci salle de yi waaye nag soxnaam si di Fatou Thiam ginnaaw ba ñu ko invité rek foofee ca Seneweb lañ ko laajee rek question bi lam xam le rek mooy nee na Mame Goor moo tay dem ca salon boobu ndax moom nee na xëccoo am réew deful lenn rek ngir bëgg a président kon nag moog Ousmane Sonko bokkuñu ndax Ousmane Sonko day yootu réew mi kon nag bu demee ca salle de massage bi moom Mame Godiya Zaka nee na moom daal moo tey kii di soxnaam si faatu Fatou Thiam rek moo ko daal di le ci ginnaaw rek ba audio boobu génne di fësal ne kii di Mame Godiya Zaka mas na dem rek ci ab salon de massage ci mbiri salon de massage yi rek ca la ñuy daal di dese nii gis nañ rek ca diwaanu Golf Sud Beva Beauté nag benn propriétaire rek bu nekkee foofee ca Beva Beauté moom nag la daal di teg loxo ginnaaw rek ci ay chantage ak ay menaces de division des données personnelles boo xamante ni bii rek doon la ko def benn commerçant ginnaaw rek ba mu ko daal di photo filmer ko ci la ko daal di rek wane kii di commerçant bi ngir xamal ko ne ko damay koy publier soo ma joxul rek lii di un million ci noonee rek commerçant bi nag daal di jaaxle daal di ko yónnee ci nga saa si euh, quatre cent mille yamu ca nag ndaw si daal di koy rek demandé waat lii di iPhone 11 Pro Max mu mel ne rek ay chantage rek la daal di jublu rek yooyu les filmé na ko rek euh, commerçant boobule ci fàttali rek patronu salon bi ay atam mi ngi toll si ñaar fukki at ak ñeent waaye naka yoon daal dina koy teg loxo ginnaaw rek ci ay menaces yoo xamante ni bii mi ngi koy def rek ngir bëgg daal di diviser données personnelles lu commerçant boobee nga xamante ni bii daal ñëwoon na ca Beva Beauté doon fa defal di di ay massage ñu àddu ci leneen ñu gis rek kii di Jeeba ginnaaw rek ba mu génnee vidéo bile di nga xamante ni mi ngi def buzz jamono ji ci réseaux sociaux yi muy guy bañ ko invité nag foofee a Sénégal dañ ko daal di laaj rek ndax dafay def concurrence ak kii di jaamaan waaye nag lam xamle nee na moom doxul sax ci yooyu ndax nee na moom ba mu nekkee xale moom nag kii di jaamaan rek la daan déglu nee na moom jëmut a teg benn yoon ay stratégie rek ngir gagner place bi nga xamante ni jaamaan am na ko rek jamono ji kon nag nekkul benn yoon concurrent bu am ci seen diggante nee na moom frère am la daf koy déglu euh, saa su nekk kon nag moom nee na deful benn yoon stratégie ngir gagné place wu jaamaan euh, dañu koy daal di jeexalee ak Coumba Gawlo Seck ginnaaw rek ba mu amee jafe rek ci baatam boobule ba mënatut rek rejoindre rek chaîne musicale bi waaye kii di Ndella Madior Diouf moo ñu daal di jox rek ay information ci émission boobule di kakata xamal nañu ne kii di euh, Coumba Gawlo nekkul Sénégal daal dinay jël vol rek daal dem extérieur ngir daal di faju ji moom Ndella Madior na ko moo ñu ko daal di xamal te ñu ngi koy ñaanal rek bu baax a baax mu am ndam ba sax rek kii di Ndella Madior nee na je prie pour qu'elle nous revienne très vite avec sa belle voix ñun ñëpp rek loolu la ñu koy ñaanal mu di Coumba Gawlo Seck lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig daje lay doon ba ëllëg ak jàmm